dellu si di leen ndokkeelaat ci bis bi nga xam ne daa am xew-xew bu màgg ci lislaam bu ci xewoon ñu di ko ci fàttaliku mu doon bis bu màgg ci jullit yépp waaye doon bis boo xam ne it ci murit yi amaat na geneen ràññiku ndax Cheikh Mahamad Fadil radiallahu anhu ci la gane aju àdduna bis bi nekk bis boo xam ne bisub fàttaliku la ak màggal ak ñaan ñu ci ziyaare ñépp di leen ci ndokkeel nu bëgg a ñëw rekk waxtaane lenn lu aju ci xew-xew bu màgg boobu mooy al isra wal mi'raj mu doon xew-xew boo xam ne rek day wane màggug suñ boroom ak coobareem ak kàttanam te dafa bokk ci pas-pasub jullit mu gëm ne suñu boroom ku am kàttan la koo xam ne kàttanam yemul fenn lottul ci dara nga xam ne alquranul karim feddli na melokaan woowu ci suñ boroom lu ëpp fanweer yoon inna allaha ala kulli shay'in qadir qudratullahi subhanahu wa taala mooy kàttan gi nga xam ne am na ko bay doxe coobareem lépp lu ko soob mu def ko namu ko soobee bind mbindeef yi bind àdduna bind nit bind rab bind lépp loo xam ne lu nekk ci kaw suuf la lu ko ci neex mu doxal dogal ko ca loola pas-pas la boo xam ne jullit bu nekk da ko war a gëm kàttanam googu nga xam ne amul fu mu yam da ko wane ci yonent bi sallallahu alayhi wa defal ko kaawteef goo xam ne ko cee teral wane ci ak màggam te mooy rañaane ko makka yóbbu ko baytul maqdis ci genn guddi yéege ko ba ca asamaan sa kawe ba ca péyam ba gën a màgg muy asidratul muntaha loole di coobare suñu boroom subhanahu wa teral gum teral yonent bi sallallahu alayhi wa mu doon xew-xew boo xam ne nag dañ koy fàttaliku ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab xew-xew boobu suñu boroom subhanahu wa taala tuddal na ko boppam ci suuratul isra wax ne subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid al aqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa alsamiu albasir kon moom moo riñaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële ko màkka yóbbu ko baytul maqdis mu doon diggante boo xam ne diggante bu soree la buñ ko daan dox lu néew néew dinañ ci am ñetti ay bis bu doon léegi ko doon dox ci waruwaay yi xew ci jamono ji muy lu mel ni wota danga ca def lu néew néew fukki waxtu ak juróom benn loolu nag soriwaay boobu mu sori waaye coobare suñ boroom ak kàttanam yemul fenn mu jagleel ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye bam demee foofa it suñu boroom wane jiital gi ko jiital ak yëkkati gim ko yëkkati ba tax mu jiite fa mboolem yonent yi ñu teertu ko màggal ko dalal ko mu jiite leen suñu boroom subhaanahu wa taala ko fa yéege nag loola it mu junj ko ci suratu najm wa laqad ra'aahu nazlatan uxra inda sidrati lmuntaha indaha jannatu lmawa iz yaxsha sidrata ma yaxsha ma zaaxa albasaru wa ma taxa laqad raa min ayaati rabbihi lkubra kon suñu boroom moo ko mu ànd jibril ba foo xam ne dong dafa wéetal wan ko fa lam ko fay wan jox ko fa lam ko fay jox lam ko jox loola suñu boroom rek moo ko xam waaye bokk na ca lii di julli juróom wala ko suñu borom subhanahu wa taala farataale xew-xew boobu nag xew-xew la boo xam ne bu màgg la Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu boo demee ci jazbul qulub indi na fa ay bayt yoo xam ne ci bi muy tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam wane na ca màgg gi ko suñu borom màggal ak teraanga gi ko suñu borom subhanahu wa taala teral mu tàmbalee ko ci salli ala saarin sama fawqa al buraaqi sama muhammadin wa karrima bi hizbihi wa sallimi sëñ bi bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi sallam di ko taggaale waaye di waxaale xar baax yu ko suñ borom subhanahu wa taala defal mu wax na mu rañaane ba na mu yegsee ak na ko yonent yi teertoo ne qad baata yuxriqu tibaaq fi lleyli qaasida wifaaq walanbiyaau bittifaaq laaqawhu bittakarrumi suñ boroom subhaanahu wa taala ci ak mbaaxam kon la ko reñaane mu ànd ak jibril indi ko baytul maqdis mu ne mboolem yonent yi ñoom ñëpp maase nañ dajeeg moom teral ko waxtaramu wa qaddamu wa karramuu wastaslamu tawaaduan wa azzamu li qadrihi lmuxtarami ñoom ñëpp wormaal nañ ko jiital ko teral ko jëbbal ko seen bopp toroxlu màggal daraja jinga xam ne moom la ko suñu boroom subhaanahu wa taala jox ñoom ñëpp wàcce nañ seen bopp tawaadau iz arafu rutbatahu wa sharrafu liqaahu waatarafu bilfadli waltaqaddumi xam nañ daraja ak wàccuwaay bi nga xam ne moom la ko suñ borom subhanahu wa taala jox moo tax màggal nañ daje giñ dajeeg moom ñoom ñëpp nangu ngëneel li ko suñ borom defal waaye nangu jiital gi ko suñ borom subhanahu wa taala jiital moo tax ñoom ñëpp dalal ko ñoom ñëpp yaatal ko ñoom ñëpp wan ko ay teggin wan ko mbégte loolu lépp di ko jamoo seen boroom subhanahu wa taala wabtadaru bilmarxabi walsahli waltaaddubi walbishri waltaqarrubi li rabbihi lmuqaddimi ndax suñ boroom moo ko jiital moo leen tànn ñoom ñëpp tànn ko jiital ko ci ñoom moo tax ñoom ñëpp ñu nangu am ci mbégte am ci yëg-yëg tax ñëpp sant ci seen borom subhanahu wa taala wal wal kullu minhum sharaa fi mahmadin iz samia dikra shafii shufaa maa amin aqdami bañ yégee ñu ñëw ànd ak jibril ñoom ñëpp sant suñu borom subhanahu wa taala ñoom ñëpp ko tagg ñoom ñëpp a wane seen mbégte ci yónni gi ko suñu borom subhanahu wa taala yónni ñoom ñépp ci am xol bu xel mu dal xol bu sedd ñoom ñépp ñoo ci sant suñu borom subhanahu wa taala wal kullu minhum madaxa min baadi ma qad farixa bi baadihi wansharaxa sadran li shukri niami waaye foofa nga xam ne fa la ñëwee ñoom ñépp ñu dalal ko jiital ko wane seen mbégte fala ko suñ borom subhanahu wa taala yéegee nag moo tax suñ bi wax ne fa gaaba anhum wartaqa fawqa alburaaqi li liqa xabibihi waxtaraqa xujbal ilahi almunimi nee na mu fàddu yéeg ci kaw alburaaq ngir dajeeg soppeem ba ñu daal di bëtt yi nga xam ne mooy kiraay yi nga xam ne moo dox diggante jaam ñi ak suñu boroom suñu boroom mi nga xam ne mooy xéewal mooy jox xéewal ab jaamam kon suñu boroom moo ko jox ay xewal xewal yooyu moom lu sëñ bi junj ci xujbul ilaahil mun'imi mu ne ثم لداره ثنى وقد حوى كل منى منه وأذهب العنا وجالبات النقم mu daal di delsiwaat nag ca këram ca ba muy ñëw indaale na mboolem luy mébét mboolem luy xéewal mboolem lu ñuy bëgg waaye suñ boroom dàqal na ko coona ak lépp loo xam ne day bijji aw mbugal kon xew-xew la bu màgg boo xam ne nit yàlla yi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax mu bari lool nag loo xam ne mën nañ ko cee jàngate mën nañ ko cee dégge ndax xew-xew bii di xew lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay jóge màkka ñëw madina xew-xew la boo xam ne bi muy am fekk na yonent bi jànkoonteeg ay metit ak i coona ak i tumuranke ba at moomu sax dañ ko doon tuddee amul xusn muy atem atum njàqare ndax ñu ko jege woon lool daan ko wéttali daan ko jàppale ci coono yi nga xam ne moom la koy yéefar yi daan teg muy soxnaam su baax soosu du soxna xadijatu radiyallahu anha dafa génn àdduna ki nga xam ne mooy baayam bu ndaw di abu taalib nekkoon kuñ wormaal ci quraish yéefar yi doon ko bàyyi xel liñ doon teg yonent bi daanañ ko ci bàyyi xel liñ ko bëggoon ti bundu xatal daanañ ko ci bàyyi xel moom it suñu borom subhanahu wa taala jël ko mu jànkoon jànkoonteeg ay tumuranke lool dem taayif yaakaaroon ne danañ ko yaatal ñoomit ñu teg ko fa bundu xatal ko fa ca la doon ñaan ñaanam gu daw yaram googe allahuma ilayka ashku dufa quwati wa qillata xiilati wa hawaani ala annaas anta arhamu rahimin ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni aw ila qaribin mallaktahu amri in lam takun gadbaana alayya fala ubali gayra anna aafiyataka awsau li mu doonoon jamono yu metti yu tiis mu mel ne suñu borom subhanahu wa doon na ko dëfal doon na ko wan ne ko bëcc ngalum wanuma la ginnaaw waaye maa ngi lay teral ba tax mu defal ko teraanga ju rëy jooju mu mel ne it xew-xew boobu jamono yi muy xew nga xam ne ñi ngi waajal gàddaay gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge màkka dem madina ngir yaatal fa diine ginnaaw bu ñu ko buntu xate xatalee lool ci màkka te ku ne xam ne ne gàddaay laaj na pas-pas bu dëgër laaj na gëm-gëm ndax bàyyi sa jaboot bàyyi sa alal ngir diine loolu ku amul pas-pas bu dëgër doo ko man mel na kon xew-xew boobu ab segg la woon ab nattu la woon ci xool ñi nga xam ne seen pas-pas dëgër na ak ñi nga xam ne seen pas-pas woyof na waruñoo mën a ànd ci loolu nga xam ne lu diis la lu laaj ak dëgër la lu laaj ak gëm-gëm la te mooy gàddaay ba tax na ñu bari ñoo xam ne seen gëm dëgërutoon bi ñu xëyee wax ne yonent bi kat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kat nee na suñu boroom da ko rañaane yóbbu ko baytul maqdis waaye jëli ko fa yéege ko ñu bari ñi seen gëm-gëm waaye foon dañ ko weddi doxe fa xaw a ñàkk seen pas-pas waaye ña nga xam ne seen pas-pas dëgër na ñoom ñëpp dañ ko daal di dëggal sidna abu bakar radiallahu anhu bokk na ci li tax ñu de ko melal as siddiq ndax bañ ko ko ba ko déggee rek wax ko ko dane bu fekkee ne moo ko wax rek dëgg la nga xam ne loola wane na pas-pasam ak dëgëru pas-pasam ak ñu meloon ne moom kon mbir la moo xam ne nattu la woon ci pas-pas yi ñi ñi nga xam ne ñi ngi àndoon ak yonent bi sallallahu ngir waajale ko gàddaay gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi waroon na ko waroon na ko gàddaay jóge Màkka jëm Madina waaye li ñuy gise ci al isra wal mi'raj mooy kon yonent bi sallallahu alayhi wa li ko yàlla yónni dafa ëmb mboolem yonent yi ko jiitu woon diine yi ko jiitu woon daa ñëw ëmb leen nga xam ne dafa matale mboolem mbindeefi yàlla yi ñépp nit ak junne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen yonent ndax yonent yi ko fi jiitu woon yépp jiital nañ ko loole nag suñu borom subhanahu wa taala da ci wane ne kon moom ak yonentam mooy yonent gi mujj te moo ëmb mbooleem xeeti mbooleem risalaat ak yonent yi nga xam ne eh, jiitu woon nañ ko aw xeetamit nekk xeet wi nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala jiital ñu war a seede mbooleem xeet yi nga xam ne ñoo leen jiitu jiitu woon wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala annaasi wa yakuna arrasulu aleykum shahida kon eh, lu baree baree bari dañ ko ci mën a jàngate kon muy wane ne lislaam mooy diine ji nga xam ne moo ëmb mbooleem xeeti diine yi alquran mooy téere bi nga xam ne moo làmboo mbooleem lu nekkoon ci téere yi ko jiitu woon nekk téere bi nga xam ne mooy bi mujj yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ki nga xam ne mooy xaatimul anbiya wal mursalin waaye it bokk na ci liñ mën a dégge jànge ko ci xew-xew bi mooy julli nga xam ne ci la ko suñu borom subhanahu wa taala farataal jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam màgg gi màgg doon ñaari lu ponki lislaam ndax mboolem farata yi nga xam ne suñu borom farataal na ko ci jullit ñi dafa yónni jibril mu ñëw jottali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mel ne julli moom la suñu boroom woolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba fa moom mu joxal ko ko boppam loolu nag day wane rek ponk bi màgg ku màgg ak bàyyi xel guñ ko war a bàyyi xel ak fonk guñ ko war a fonk yonent bi alayhi salaatu wasalaam baree bari jàngal nañu ne julli jëf mooy jëf ji ci jëf yi am na xadis boo xam ne abdullah ibn mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu nee na dama laaj yonent bi salallahu alayhi wa ne ko jan jëf moo gën ci jëf yi mu ne ko julli ci waxtoom mu ne ko lan moo ci topp mu ne ko topp sa ñaari waajur mu ne ko lan moo ci topp mu ne ko jihaad fi sabilillah qaala sa'altu rasulallahi salallahu alayhi ayul amali afdalu qaala alsalaatu li waqtiha qaala qultu summa ayu qaala birru lwalidayni qaala qultu summa ayu qaala aljihaadu fi sabilillah kon loolu day wane ne julli kon jëf ju màgg la joo xam ne e, moo kawe mbooleem jëf yu baax yi moo tax alquran ak sunna soññee ci lool jàngal nu ngëneel yi nga xam ne am na ko ak njariñ yi nga xam ne am na ko bokk na ci njariñ yi nga xam ne julli am na ko mooy day dox diggante nit ki ak mboolem ay ñaawteef wax ju ñaaw jëf ju ñaaw ak yéene ju ñaaw nit ki bu fonkee julli di ko def ci waxtoom di ci sàmmoonteeg li nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala digle te mooy ànd ci ak teewlu ànd ci ak toroxlu teewlu suñu boroom ci biir julli gi waaye di toroxlu toroxlu suñu boroom di ci yëg màggug suñu boroom loola ku koy def julli ga day am jeexit ci say cër am jeexit ci sab xol ba dañ dox sa diggante ak xalaat bu ñaaw wala jëf ju ñaaw wala wax ju ñaaw suñu boroom subhanahu wa wax ne utlu ma uxiya ilayka min alkitaabi wa aqimi salaata inna salaata tanha an alfaxshaai walmunkar moo tax bokk na ci li ñuy xamee ne nit ki suñu boroom nangu na ak julleem mooy buñ gisee ci moom muy gën bëgg lu baax di gën a moytu ab safaan li nga xam ne danañ ko gis mooy nit ki mën naa fonk julli xëy na ci kaw fekk te xol ba nam ca war a teewloo duñu teewloo nam war a toroxloo duñu toroxloo loola mën naa dox diggante nit ki ni mu war a jariñoo ci julli gi du ko ni jariñoo julli gi du feeñ ci ay waxam du feeñ ci ay jëfam ndax du ko tee mooy wax wax ju ñaaw du ko tee muy jëf jëf ju ñaaw te suñu borom subhanahu wa taala moom wax na ne julli day dox diggante nit ki ak ay ñaawteef kon loola dañ ci dégg ne julli gu ñu nangu day fe faw mu feeñ ci dundu nit ki faw mu feeñ ci ay waxam muy wax wax yu yiw wax ju baax jëf ju yiw jëf ju baax waaye fokk mu feeñ kon ci aw nekkiin aw doxiinam ci àdduna ak jëfleenteem ak doomu aadama yi doo ko dégg mukk muy wax wax ju ñaaw wala muy jëf-jëf ju ñaaw kon loolu bokk na ci njariñ yi fonk julli waaye ci di ko def ca waxtu wa ko war def waaye di ci sàmmoonteek li nga xam ne moom la ci suñu borom subhanahu wa taala bëgg ci def bàyyi bàyyi bàyyi xel sa xol booy julli julli du ay cër rek du sëgg ak siggi waaye danga war teewlu danga war a toroxlu waxtu wu nekk bokk na ci njariñ yi nga xam ne nekk na ci julli ci yonent bi sallallahu wax ko mooy nit ki day faral di juum di am ay rëcc-rëcc def ay bàkkaar julli bokk na ci ay njariñam day faral nit ki bàkkaar yi muy def yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne julli yu juróom dañuy far la ca seen diggante ci ay bàkkaar su fekkee nit ki nag mi ngi moytu bakkaar yu mag yi te mooy mel ni rey nit wala yaasu billah mel ni njaalo wala yaasu billah ak yu mel noonu nga xam ne bakkaar ay kabair la waaye njuumte yi nga xam ne nit kaa ngi koy def ci ay bàkkaar yu ndaw diggante ñaari julli na ko far moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alsalawatu alxamsu waljumaatu ila aljumaati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima baynahunna iza jtunibatil kabairu kon diggante julli ak moroomam diggante ajjuma ba ak moroomam diggante weeru koor ak moroomam nee na dañuy faral dañuy far ca seen diggante su fekkee ne moytu nañ li nga xam ne mooy kabaayir yi bakkaar yu mag bokk na ci njariñ yi nga xam ne julli am na ko mooy leer lay doon ëllëg ci ki nga xam ne fonk na ko ci àdduna yowmal qiyaam suñ boroom dana ko defal leer goo xam ne julli googee mu doon julli ak daan dox ci lëndëm gi di julli ji loola ak leer la koy jural ëllëg yowmal qiyaam yonent bi salaam salaam waxoon na ne bashir al mashaa'ina fi zulami ila masajidi bi nuuri taami yowma al ñi nga xam ne dañuy topp lëndëm gi di dem ci jàkka yi na leen bégal ci ne ëllëg danañu am ak leer gu mat sëkk bis penc jullit doon loo xam ne day yëkkatil jaam bi ay daraja di ko sippil ay ñaawteef ku bëgg say daraja di yokk saa bu nekk njuumte yi ngay juum ñaawte yi ngay def suñu boroom di la ko faral dangay ngay fonk di julli julli yu baree bari loolu nag yunt bi sallallahu alayhi wa moo ko wax ndax tawbaan moo ko laajoon moo ko moo moo ko moo ko laajoon moo moo waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko ko alayka bi kasrati sujudi fa innaka laa tasjudu lillahi sajdatan illa rafaaka allahu biha darajatan wa anka biha xatia maa ngi lay dénk nga baril looy sujoot ndax saa boo sujootee ab sujoot suñu borom subhanahu wa taala dina la ci yëkkatil dara say daraja waaye dana la ci sippil ay ñaawteef ay njuumte ak rëcc yi nga xam ne danga ko def saa booy sujjoot suñ borom subhanahu wa taala da koy te nag doomu bu nekk yàlla da ko binde juum aadama xata wa xayrul xata ina yi nga xam ne ak rëcc-rëcc yi nga xam ne jullit bi mi ngi koy def bu dee bari lu muy sujjoot suñ borom dina ko ko sippil te euh, bokk na ci liy maye àjjana waaye ci anam goo xam ne nit ki jullit bi day ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci la bokk sabab bii taxa dugg àjjana ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cee bokk euh, rabia ibnu kaab al aslami moo ko wax ne dama mosa fanaan ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee ma jox ko ay jumtukaayam ay ajoom ak ay li muy jàppe ba noppi mu ne ma laajal loo bëgg ma ne ko ànd ak yow àjjana laa bëgg mu ne ko bëggoo leneen mu ne ko déedéet ànd ak yow àjjana rek mu ne ko fa aini ala nafsika bi kathrati sujud kon nag ma jàppale ci sa bopp bari looy julli

رسولنا محمدا رسول الله رسولنا محمدا رسول solo soosu nga xam ne ponk boobu am na ko ci lislaam te bisu tey bi bokk ci bis yi nga xam ne dañ koy fàttaliku ci gàdda rañaan mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko suñu boroom yéege ko jox ko fa julli moo tax nag sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ñu xamoon ko lool ci fonk julli ci ak dundam ci ay njàngaleem ci ay mbindam ku ne xam na moom fu mu mës nekk rek lañ fay gën a ràññee mooy ab jullikaay fa muy jullee fu mu mës a jaarit màndarga ma fay bàyyi mooy fu mu jullee kon loolu day wane fonk gim ko fonkoon ba ñaan ay dëkkuwaayam nekk ay jullikaay wajal wajal buyuti kullaha waaye it ñu gis ko ci xat lum xat fu mu a nekk lum xat-xat la muy jiital mooy julli de bureau ba ca ndar géej gi fépp rek eh, lu ñuy nettali rek daanaka ci moom julli dana ca bokk maa yomba jàkka jam fa doon taxawal lépp day firndeel rek fonk gi mu fonk julli waaye ci ay mbindamit fu mu fi li koy digle ak di ko di ci soññee bari na lool mi ngi wax ne sallil faraida maa tawaabii muraayan nahja nabii taabii na ngay julli farata yi boole ci sunna yi nga xam ne mooy naafile yi muy àndal sàmmonte jeeg ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee ni ko rëddee kon dalay digal ngay julli farata waaye boole ci ay naafila wax ne li yonent bi doon wax julli euh, day jox nit ki ak leer sëriñ bi wax na ne wajtahidu fi salawaati alxamsi takun lakum nuuran ka nuuri shamsi na ngeen farlu góorlu ci julli yu juróom dina doon ak leer ci yéen leer goo xam ne day mel ne leeru jant wax ne bu leen yeexi julli mukk ca di ko tey ngir jëmmi suñu boroom subhanahu wa wala tu axiru salaata amda li wacci baaqin laa yulaaqi hamda te julli ci waxtu bokk na ci topp yàlla yi gën a yi gën a màgg yi gën loolu sëñ bi wax na ko ci ay barab yu bare bare bari kon sëñ bi daana digle daan moytandikuloo ay soxla jiital la ba nga sàggane julli wax ne képp koo xam ne say soxla ay soxla moo dox sa digganteeg julli doo jariñu ci julli ga doo jariñ ci soxla ya waaye koo xam ne nag julli soxal na la walif say soxla wala say mbir da nga jariñu ca mbir ya waaye da nga jariñu ca julli ga man shaghalatu l ashyaau an lsalaati laa tantafiu bil ashyaai wala bilsalaati wa man shaghalatu salaatu an l ashyaai intafaat bilsalaati wa bil ashyaa moo tax ñi mu yar ñu xam ci ñoom fonk guñ ko fonk maam xaadima jaxate kala rahimahullah am na xasida goo xam ne da ci doon tagg ay murit yu ko doon liggéeyal mu seetlu leen def ci ñoom ak xasida bokk na ci lam wax wama fama rafaul aswaata illa bi zikrihim wama axarul awqaata naflan wala farda mu ne saa boo déggee seen kàddu rek dañuy tudd yàlla waaye daawuñ yeexe waxtu du farata du la leen nekk ci waxtoom lañ ko lañ ko doon def kon loola day melal ne ni ko sëriñ bi fonke woon diglee ko noonu la ci doon yare bokk na ci liy màndargaal kon fonk gi ko fonk di gën a màgg ci yim digle woon bàyyi fi mooy jumaa ji nga xam ne mooy jumaay Tuuba xam ne da koo digle woon ca ñi ko fi wutu muy Cheikh Mahamadou Moustapha ànd ak murid def ci seen yitte ak seen pas-pas ba tàmbali ko ba mu sori Cheikh Mahamadou Fadil ñi nga xam ne tey bis bi bisam bisam la ñu gis taxawaay ba mu ca taxaw ba ñu julli ko mu jiite ko ay at euh, loolu lépp day firndeel rek yitte joo xam ne sëriñ bi julli yitte loon na ko waaye ak njabootam it yitteel gum leen yitteel Cheikh Amadou Fadel dégg nañ ba tey ci ay waxtaanam daan faral di nettali al isra wal miraaj ak ni suñu borom subhanahu wa taala joxe yonent bi julli loolu ñëw na ci ay waxtaanam yu bare bari eh, ñu koy dégg ci ay bànd kon loolu day tegtale rek na moom kat ab amoon na ci ak jagle ci digg ci mbirum julli ak ni mu ko fanke woon ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yokk ay leeram yaatal ci moom ngërëmam ca taasuñ ci barkeem kon ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi lool te yokk ak wér ba li mu naala liggéeyal lislaam liggéeyal ko doomu aadama yi suñu boroom kàttanal ko ba mu sottal ko naan kook moom di ñaan mboolem ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy ñaan ci bis bi suñ boroom nangu ko te ñi nga xam ne jóge nañ barab daje fi ñëpp suñ boroom sàmm leen delloowaat leen ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hayya الحمد لله الذي عم العالم جودا وإحسانا وجعل لفاضان رحمته أوقاتا وأزمانا نسأله أن يرسل منا الصلاة والسلام محمد الذي فتح الله لأمته من سعادتهم ما أراد وشمل بنعمة شريعته الحاضر منهم والباد وعلى آله الأعيان وصحابته الأعلام صلاة كاملة تتصل ما بين ما اتصلت الليالي والأيام أما بعد فيا أيها الناس إن شهركم هذا رجب الفرد الحرام قد ذهب ثلثاه ولم نحسن فيه عبادة الله fa aksiru fi ma baqiya minhu min nawaafilil xayraat wal amaali saalihaat wal birri wa taaat wa inna fi yowman عظمه الله على سائر أيامه كلها فيستحب تهذيبه شكرا لله والتعرض فيه لنفحات رحمة الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فمن صامه ابتقاء وجه الله ومرضاته عوض الله بصيامه أجرا كثيرا فاجتهدوا يا عباد الله واعملوا عمل من يعلم أنه راجع إليه إجازة على الصغير والكبير سبحانه أنه laa ilaha illa huwa al aliyu al kabir الحمد لله الذي وسعنا برحمته الشاملة وبلغنا بمنه الأزمنة المباركة الفاضلة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده الأمي الأمين ورسول ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس بالأمس كنا في فسحة من شهر الله رجب واليوم قد كاد يغيب عنا هلاله ويحتجب وأخذ في الانصراف وقد آن رحيله وبرز الانتقال والفراق دليله وقد ظهر فيه بالبغية الصابرون ونال فيه الخيبة والحرمان المقصرين فودعوه وداع الحديد وزودوه من الخير بأوفر حظ ونصيب وتأهبوا للقاء شهبان شهر التوبة من الإسلام والطهارة من الأدران والتكفير للذنوب والتنوير للقلوب والتسهيل للحساب والتأمين من العذاب والنجاة من النار والوسيلة إلى العزيز الغفار وفقنا الله لأعمال المقربين وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم آمين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 والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله التي انت حديث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 Allahu akbar السلام عليكم السلام